citoyen Déthié Diouf président du parti Visa les citoyens coordonnateur de l'opération Saxal Set ngir wér et doggali corona. Euh, dañu ne ñun dey tey euh, Covid bi yàqoon na réew mi ba ñu demoon ba yaakaar ne jóge na fi ñu naagu ñëpp wàccee seen loxo tey ñu ngi naan quatrième vague donc chiffre yaa ngi yéeg yéeg bu nga xamee ne bu tombeek nag élection yi ñu gëm ne calendrier électoral bi dañ ko war a régler dañ ko war a respecter waaye nag naan. candidat leader politique bu ne yaa ngi defar ay t-shirt yaa ngi defar ay lakos yaa ngi defar ay support na leader politique bu nekk tamit mener la campagne électorale contre le Covid 19 mooy ku ne na wat ay masques yu doy wat ay saabu wat ay gel di ko jox nit ñi di ñaan ministère de l' intérieur ak préfet ak yooyu xam nañ fa rassemblement di am ku ñëw di déclarer sa rassemblement ñu sas la pour nga wat ay masques pour ñu mën a fexe def sunu wàll mooy fexe propagation wàllante bu gaaw bi. mën a mën a wàññeeku ba yàlla mën ko fee dakkal loolu nag ñun en tant que leader politique yàgg nañ koo wax yàgg nañ koo jëpp waaye tey lañ ko gën a woote moo tax ñun suñu parti campagne électorale ci loolu la ko njëkk a jiital. alors léegi nag euh, tey bu loolu wéyee euh, ñu daal di taxaw àndoon nag euh, coalition ànd Siggil Thiès joxe suñu récépissé pour coalition ba taxaw. def ci taxawaay ñu njëkk ñoo fal jox ñu cellule com bi ñu doxal doxal doxal indi ay éléments de langage indi ay concepts yu am solo yu indi wax dëgg yàlla succès ci coalition bi. bañ demee ba gis nag doxalin bi nga xam ne am na fa te doxalin boobu dëppoowul ak li ñu yaakaaroon ndax yore entreprise yore xaalis bu fekkee ne da nga da nga jàpp ne moo war a tax nga nga danga war a jiite dëkk bi juum nga ndax nit ki dafay am modestie du ci nekk ni ngay am xam-xam mën nga doon un grand manager au plan professionnel waaye doon un piètre politique. te Ablaye Dieye des naa mat kilifa pour mën a ñu dénk ko dëkk bi loolu nag moo tax ñu bàyyi ko foofu le 6 la ñu bind suñu lettre jox ko ko boobu ba tey sañu ñoo woo sañu ñoo jege ndax it moom doonul nit ku mat kilifa pour mën a wax ak njaboot ju ndaw ji mu yore muy coalition bi ñu bëri ñii ñi ngi bàyyi ñii ñi ngi euh, ruumandaat ci suuf ñii ñi ngi kaas ci suuf man man nekkoon fa di fa dox jàmm waaye am euh, directeur de campagne ñu ko ameen bay nga xam lu xóor am ci dëkk bi rek mi ngi ci donc euh, xëy na yey noppam ba tax euh, mu taxee ni mu taxee moo tax le 6 janvier ñu jël suñu décision historique ak suñu parti ne dañuy soutenir la candidature du ministre Yankhoba Diattara ndax euh, président Idriss Seck ba mu nekkee tout puissant ministre d'État la def li mu def Thiès tey moom yàlla dogal na moo toog ci place bi ñuy décidé te tey dëkk bi ak Sénégal toll na foo xamee ne maanaam am ku mel ni moom ci dol dëkk bu mel ni Thiès dina tax Thiès mën a gaaw a àgg fi ñu ko bëggee ci wàllu réalisation ndax ku naan ay 100 mesures wax dëgg yàlla 100 mesures moom xam nga ne téeméeri mesure moom wóor na la ne <laughs> mënuta mënuta mënuta ne loolu wér na waaye moom euh, euh, ministre Yankhoba Diattara dix engagement rek la jël dix engagement nag mën nañ ko réaliser ci euh, mandat bi nga xam ne mën naa ne ak it nag poste ministre bi dina dimbali jeunes Thiès yi ñu mën am accès ci internet beeg wifi beeg yeneen ak yeneen ak yeneen kon loolu moo tax ñu dogu ne fi mu toll ni bis ni ki keroog le 6 ñi ngi ci Benno Bokk Yaakaar képp ku ñu yaakaaroon doon gis sunu tur fële nekkatuñu fa ñi ngi fii te dinañu def ala accu bu nga xamee ne ku ne dina xam ne ne ndam li au soir vingt 23 yàlla dina ko dénk le monsieur Koba Diatara pour mu gën a dëgëral liggéey bi. profond ndax xam nga ki nga xam ne moo la jox récépissé jox la ay concept di la jàppale di la bindal seen discours di la jàppale. yow nga jàpp ne danga nga am xaalis ndax boo waxee ma ne la noo du nii nii lañ ko war a defee wala nii nga war a def approche bii nga jël di ko jëmale ci kii bii baaxul nañ def bii maanaam yéen nga ne non kii dafa compliqué dafa bëri lu muy critiqué ak yooyu bu ma la bindalee wax la ndax man lépp dama koy bind te mi ngi ci suma whatsapp man ak moom lañ doon la ma ko doon wax bu ma ko waxee bu ma ko critiqué du ñemee tontu bu ma ko critiqué mu dër dootul wax waaw léegi nag nit ki nga xam ne nag yow da nga dugg ci politique te buñ la critiqué ah nga mën a nga doo doo mën a doo mën a doo mën a tontu kooku kenn waru koo mën a dénk dëkk bi ndax it man aw ma problème personnel ak moom lettre bi ma leen jox démissionné le 6 la ma ci waxoon gis ngeen ko bu doon damaa duggoon nag ci xeex depuis le 6 ba ma démissionné ca laa koy def euh, buzz bu nga xamee ne indil ko ay coow waaye maa ngi ko mayoon occasion pour mu ñëw jubbantiku ñu mën a gindekonte mën a jubbanti li nga xam ne ne baaxul ak yi ci biir ndax Ameth Mbaye moomu ñu bëri jóge nañu ci moom ndax doxalinam ak waxam te nëbb na ko loo xam ne bu campagne bi avancé ba ca biir moom dina ko gis te dina xam ne ne choix bi mu porté ci moom loolu bokk na ci li ko li ko li koy xañ dëkk bi